et Colgate Double Action, tu as l'air en pleine forme. Ah, merci. Tu ne nous reconnais pas Nous avons commencé ce boulot en même temps que toi. euh, on dirait que... Nous, sommes Mais les brosses à dents usées ne peuvent pas bien nettoyer les dents. Oui, on le sait. La brosse à dents Colgate Double Action a des poils en forme de V, résistant, spécialement conçu pour nettoyer l'intérieur, l'extérieur et entre les dents pour une bouche plus propre. À plus tard. J'en suis pas sûr.

Pour respecter l'équilibre de votre peau, utilisez la gamme de produits Sivoderm chaque jour et débarrassez-vous des taches, des démangeaisons et de toutes sortes de bactéries. Avec le savon et la crème Sivoderme, plus de problèmes de teigne, pieds d'athlète, d'âtre, points noirs. La lotion Sivoderme apaise, empêche les boutons et revitalise la peau. La crème et le lait de beauté sivoderme garantissent quotidiennement à la peau souplesse et beauté. Civoderme, la solution d'une peau saine et sans boutons. foog naa ni sama diggante ak théâtre dara du si ma sa lëndam sama ngone sama doole sama kattan lépp moom laa ko jox ndekete yow ma gros ci jël bi lañ ko fàttee si temps lañ ko fekk fii daal di koy teg dil daal koy dil trafiquant de drogue da drogue moo leen di fii vaurien आजा ए, वैसे आ रहा Faut rien. gis ngeen lii kenn mënu fi jaar bu rëcc boo fi jaaree jën yi ak requin yi ñoo lay cëpp bande de du ngeen ay nit ay mbaam ngeen. mbaam yaa nga àll ba ki ngay mbaam moo la gën a doon gor. kasa jaar jaar la te jombul kenn. te yàlla lu mu nam mu jaamanu ci dara wee xaritu waykat yooyu gis nga leen tey ji yéeguñu luy riir ña ngay lekk seen ceeb di def seeni affaire yow yaa ngi fii gis nga ñun ñaar ñii li tax duñu tàggalikoo lu ñu fi indi la ko waxee lu ñàkk fayda lépp ak moom moom mi sa waay yaa fàtte ne noonu juróomi ay nen ay juróomi yoon rek lan wut si soble si ay saako soble yaa xamante ne dañ ko doon garde ah nu di si wut di si omelette juróomi yoon donc. yaa ma présenté Mayga bi. <laughs> Mayga may déglul rek. Mayga bi nit ñi comme yéen saako yi fukk ci indi ku nekk fukki doom di bu ma leen defaree lee omelette maa jël juróom nuy roñ di roñ ba xëy nu indi nu fii. sa ëppal rek kan la yóbbu fi lii yëpp. waaye ba bàyyi woon su suñu juróomi yoon yi nu omelette donc xam naa du nu àgg fii yëpp. kon nga xamni gis nga mbiri yalla yeggale bi ma jógee foofu mhm. maa ngi tudd Samsu je suis un étudiant jàpp sama xel sama xol sama xalaat lépp muy bëggal askan wi ma jël sama ay rak boot leen bëgg jàng ak ñoom jàngal leen ci xam-xam bu tut bi ma yor naka la ñu mën a def ba nekk ay artiste professionnel un bon comédien di rêver tout le temps qu'il devienne des stars. Connexion, ok? Reste sur lui. Ok Gardez la connexion, gardez tout..! Voilà Top..! ici. Tout le monde, Top..! en retourne..! Top..! derrière, tout le monde ici. Top hein..! Ok, on va avoir une différence. Allez-y. On va le voir calmement. Et c'est ici qu'on va préparer la chose. On n'attendra pas d'être en contact avec lui pour être dans l'élément, ok Un comédien, c'est une présence, c'est une activité. Il faut qu'il soit dedans. Et ça, il faut le préparer. On a l'imagination, on a la mémoire affective. Et ça, il faut que ça se sent. Pour que nit qui le gomme, il faut que toi, d'abord, tu sois dedans. Ok Allez-y. Qu'est-ce qu'il t'a fait, celui-là Le gars. Vas-y, sucre, Vas-y. Ok Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose entre toi et ce truc qui est là-bas. Cool belle chose. Ok. Mina, regarde. Tu l'as vu Pour le sentir. Toi aussi, la même chose. Ok Ok. Allez-y. On va le chercher. Allez-y. On va le chercher. Il faut qu'on sache que quel coup d'aide, l'amour est fauve. maintenant, on est un peu plus pressé. On est un peu plus pressé. On est un peu plus pressé. Donc vous voyez déjà, stop, personne ne bouge. Regardez ça. Regarde-moi. Cool. Maintenant, transmets tout. Ta haine, transmet tout sur, sur moi. Tu comprends ce que je veux dire Le public, il te regarde. Il a envie de croire à ça. Si tu fais semblant, ne va pas te croire donne ton énergie. Tu ne peux pas le crier de là. Tu as vu, ça vient. Et ça vient de là. Peut-être c'est moi qui t'ai violé, je ne sais pas, si c'est moi qui t'ai ton père ou autre, mais cherche un alibi. Et sois cela. Ne le joue pas. Il faut l'être. C'est ça l'ingratitude des fois de notre métier. OK On prend la place des autres. Personne ne prend notre place. C'est cool, développe ça. OK. Vas-y, Cool. Mais fais quelque chose encore de plus. Ok, vas-y. Cool. Tu développes les choses, hein? Ok? Laisse ça, Khadim. Laisse, laisse. Ok? Te concentre pas, lâche. Lâche, lâche. Bye, bye, bye, Céline. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Lâche, lâche. Voilà. regarde-moi, regarde-moi. Oh, oh, oh, regarde-moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire Regarde-moi. On a tous envie de faire un très beau spectacle. Ok J'ai pas envie que tu sois bon. J'ai envie, moi, que tu donnes le meilleur de toi-même. Et tu es bien, faut quoi. ok C'est le prix de notre travail. Le théâtre, il est ingrat, n'est-ce pas On travaille trop, on ne perçoit pas assez. Tu comprends ça miens. Il faut en faire une passion avant d'en faire un travail, ok C'est bon Ok les gars, on va arrêter pour aujourd'hui. Hein? C'est bon Non, on va pas mangi ngi dëkk ci quartier boo xamante ni c'était pas facile am na si ñoo xamante ni ginnaaw yàlla ñu ma doon jàppale seen xol seen xalaat xamoon nañ yéen yi ma amoon ak samay rak jàppale leen boole suñu gëm-gëm suñu am-am suñu mën-mën ba génne benn produit à la télé mais nag du lépp neex ñëpp.

xamoo lu eh, je le donné eh, Yo jom. Yo tu Yo Amina. sama texte dama am texte. defal bëgg fais comme tu veux fais comme bon te semble le théâtre c'est pas difficile tu fais juste pour que les gens rient quoi. Ah, fais le clown fais le clown fais le vas-y fais comme tu veux. waaw hein? voilà y a une petite piscine Tu ok euh, eh oui mais eh

digal waay dama ngay nelaw rek eh boy kay yow sa sek joxul ba xal la da ngay da ngay foro jëlee waaye yéen ñaar waaw kay kay kan toog Khadim yow yaay gàllankoor pers yow di nga téye pers kay ok les gars c'est parti action ñoo leen on y va ya ya eh boy eh boy boy boy lan mooy ya ya i ñoo xam quand même

mais booy bi démb la fi ñëw kii amul dara amul dara billahi kala amul ma jigéen ñëpp na yàlla non non man sama problème sama problème mooy ni mu jëlee élan ni waaw mais ni billahi da ko mu jël damay jël ni koy fess rek koy fess rek Bon, les, les gars, ce qu'on va faire, hein, man, je suis un peu fatigué. Très fatigué, ça, à la limite, quoi. Je suis à la recherche de thunes, quoi. Il faut qu'on fasse ce film. ce qu'on va essayer de faire moi. Bon, bu répéter répète un nopp Vraiment. vraiment daleen hein? Hein? quand même a un téléphone yi di sonné fii ñu nekk di wax ok ce qu'on va faire hein. on va arrêter la répétition aujourd'hui oui comme ça on se retrouve ici demain man je vais chercher un peu d'argent et tout. après ñu daje fi suba. dara xewal ku ci bokkul ku ci bokkul ku ci bokkul mais demee bu leen na nga teel a ñëw nag. waaw waaw waaw way walooy wi walooy way walooy man a nanaani komi man wiima komi jettaaɗo gadi je do e sara blessé blessé Senghor eyi eh, blessé Senghor jon gonmi gardi e sulle rundu mayi mi arat fouta

ana sa kayitu rendez-vous nga ni kayitu rendez-vous bi bëgg a dugg. rendez-vous laa am ci grand benn rendez-vous yow yaa ñëw di xamee naa la de yow si bii mooy tey quatre fois ma lay gis. waaw quatre parce que yow fois bi nag. looy doyee grand yow looy doyee grand. dégg naa loolu man mooy secrétaire laa man da ngay wax ma boo mu waxee après ma wax grand bi mu wax la wax ma loo koy doyee. waaw xam nga dama yor fii trou bu théâtre léegi dañu war a ñëw ñu jàpp nañu si théâtre yu ñàkk fayda yooyu moom ngay def yow mag magu magum jëmm dem waral liggéey ngay def théâtre ñàkk fayda yooyu yéen ñii théâtre da ngeen a ñàkk dégg nag ñëpp nag nekkul ñëpp dañ ñàkk fayda dañoo ñàkk waaye def ci bëri ñoo xam dañoo ñàkk fayda da ngeen di si télé bi ngeen théâtre ngeen génn ngeen théâtre ngeen dugg si grand bi da nga a théâtre bi non non du nangu ay théâtre si bureau bi amul ay laaj xaalis naa la allez rendez-vous ima pourtant nag gis nga yow man si théâtre bi ñuy tourné nii dama ci gis benn gardien boo xamante ni comme ni nga mel laa bëgg mu mel am billaahi booy bul mu baab non non baab ma xool ni nga taxawee nii grand bi lay def sa tànk a xafar yooyu dafa cool de bëggoon yow da nga ma da ma cee bëgg a boole dama gis ni ngay doxale nag ma waroon wax man dama doon def théâtre dama doon def théâtre def naa théâtre Fouta ak sama boy maa leen dan wax ñu def théâtre yi et puis ñoom ñëpp maa leen wax nii la ñu def théâtre bi quoi. d'accord ma soxlaa mën naa ko man yaa ngi ci biir man Sam laa tudd. Sam Sam si biir. ah Sama Diine. Eh, eh, <laughs> non non Sama Diine waaw. Sam su diine. Sam su sama waaw waaw <laughs> xam naa ko waaw waaw waaw. léegi nag est-ce que yow tu parles français waaw. waaw. oui euh, tu way way way français way dégg naa français way dégg naa ko de. dama la koy bañ a wax léegi rek. d'accord léegi ban affaire nga mën a à français damay lak bul damay lak soose boo buggee théâtre bi sax mun naa la defaral bul ak soose su nexe moo su ma jógee su ma def théâtre Sénégal affaire bi neex na waaye Sénégal boobu neex na la ak soose bi damay wax mbari man ko lu ni Dakar traje traje waaw dugal de grand bi ko boy bi moom bàyyi quoi boy sow boy sow waaw waaw allez nga gaaw nag théâtre bi bu ko ma nekkee théâtre génn télé bi génn télé bii moo ma neex génn télé moo ma neex <laughs> moo ñu neex way moo ne dafa am loo xamante rek da ko njort xamoo yow lan mooy riir sama bir xol bëgg nga génn bul xam man li ma bul xam li ma bul xam li ma boole ba tey jii ma boole sama xol ak sama xel boole sama ay rakk ak samay mag bëgg jëli ñeneen ngir bégal askan wi ñëpp jàpp je me souviendrai de toi mon ami tu as tout fait pour me soutenir je me souviens le jour où tu es allé voir madame <laughs> madame le maire Vous savez quoi, je vous rappelle, d'accord Mais madame le maire, les avances, la tabasque. On va s'en occuper, d'accord Là, je crois qu'il y a beaucoup plus urgent et beaucoup plus important. Donc vous, vous allez vous charger du dossier du sport. Sport. Oui, du sport. Alors pour la course ethnique euh, et tout, tout, tout c'est ça la politique. C'est à propos de mon ami là, son dossier. Quel ami Ah ben oui, le, dossier, que la commission culturelle pilotait. Voilà. À la culture, non, musique, théâtre, machin, non. On s'occupe de la politique. D'accord Madame le maire. Ah, parce que vous pouvez développer un pays sans la culture, vous Madame le maire, vous êtes le premier magistrat de la ville. dossier de Samsung. Mais celui que nous avons euh, mis dans votre bureau. Je vous ai dit qu'on s'occupe des dossiers les plus importants. On ah parle de, de, politique quand même. Arrêtez. La culture, elle n'est pas importante. Vous, Madame le maire. Vous pouvez dire ça, vous, Madame le maire, qui à chaque fois que vous avez un meeting, faites appel aux artistes, aux musiciens pour faire des, des concerts. Franchement. Comment peut-on développer ce pays sans aider les artistes et puis vous êtes le premier magistrat de la ville. Mais ces artistes ne se respectent pas. Comment est-ce qu'un artiste peut jouer n'importe où Il chante n'importe où. Il joue n'importe où, dans la rue, partout, pour tout le monde. Mais attendez. Raison de, plus, pour les aider. Raison de plus raison de plus pour les aider. Est-ce que la mairie peut se permettre de les laisser comme cela Attends, toi, on dirait que tu ne t'occupes que des dossiers de tes amis. Non, non, quand même. Non, mais moi, moi, je parle en tant que président de la commission culture je n'ai aucun intérêt. Bon, vous savez quoi, je suis pressé. Donnez-moi le numéro de ce monsieur, je vais l'appeler. non, le problème c'est qu'il n'a pas de portable. ça veut dire quoi, il n'a pas de portable Bon, il n'a pas de numéro. Euh, il n'a pas, il n'a d'argent. Il garde la puce parce qu'il y a des réalités sociales, quoi. Il parle d'un artiste. Mais c'est un artiste. Bon, d'accord, vous me donnez son email et puis je, lui envoie un mail rapide. Non plus. Ah, madame le maire, vous oubliez que c'est vous qui avez refusé qu'on mette Mais un artiste doit être professionnel. À quoi vous servent maintenant euh, tout ce qu'il y a comme communication, quand même Donc, aidez-les à sortir de l'amateurisme, madame. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation est suffisamment alarmante, madame le maire, pour quand même aider ces artistes à mieux s'organiser. Je suis pressée, on reparlera de tout ça, d'accord Là, je suis très très Oui, mais Madame le maire, pensez-y, hein Pensez-y, pensez-y. Je vous rappelle une chose, vous êtes le premier magistrat de la ville. Vous avez l'obligation de soutenir... Et notre culture aussi pour nous développer. li lan la téyel sa loxo bul ma ne papa yow ya ñak jom yow lay def fi lan nga amul ci kër ga liñ la defal yépp ci kër ga yow lo joxoñ ma dag ko bul ma ne bayil do téye sa lam bàyyi àlla juuf li yow lo joxoñ ma dag lo joxoñ ma dag ko xoolal yaa ngi banti balé bul mané ne papa bàyyi li ngay wax do téye salamine may wax ngay wax ah lu lu ko fi jar lan la lu la ko jaral góor ah sa waa ji. Hmm. nga xam ne dari golo la ëwul julliwul. na njongale yam ci aat yi de. xam nga suma tànk lan la hmm. yërmande bàyyi. Hmm. gis coono gi nga sonn fii ci kër gi lekkoo naanoo def nga ko ba mel ni bul ma ne papa bàyyi li ngay wax de li may wax dëgg la mooy mbëggee bu fekkee ne lii mbëggeel la man onsu billahi min mbeugel mbëggeel rajim suur naa mbëggeel complètement li ngay wax te déglu ma papa papa yow yaa ma ne woon nit day am conviction am limu mu gëm ah waaw papa gis nga samsu mii dina ko japp jappale ko ba keroog may sango suuf ndax loolu yaa ma ko jàngal te ci loolu la nara a jappal ba keroog ngay sango suuf waye di nga xamne ne xale lu doxal bàmmeel samym kraju. am am demal ngeen nga jënd ci lu ngeen lekk. baax na lekk na. baax na lekk na. xam ngaa ñu loolu de foog nga seen bool yi maa ngi bàyyi sama waa kër ñu fandi fan laa war a jaar kan moo may jàppale fan la yuuxoo wàllu kenn taluma kenn xalaatuma moo ne sama xol mi ngi réer ngir askan wi mu ne sama xel sama xalaat sama njort sama bëgg-bëgg askan wi rek la lu leen di yee nga xam sax <laughs> adduna daal moo day chérie. Oui, je te dis, tu me manques. Mais oui, j'ai envie d'être avec toi. Attends, ma femme, je la sens pas. Elle est trop statique. Tu comprends pas Elle est comme une machine. J'ai besoin d'une femme comme toi. Avec ton malfait, tu dégages. <laughs> Mais tu dégages, ah oui, avec ta voix. Elle est suave. Elle est très, très suave. Ta voix. Sobel donne moi mon téléphone Yo, wax de Yo, yaay imbécile baa que jëkkëru jàmbur yi Allô? allo Sobel donne. moi ma téléphone. Sobel qu'est-ce que tu viens de faire toi. Hmm. mais ça va pas. ça ma sa madame. ma sama tu es chez moi en train d'appeler ta copine. Hein, va faire tes cochonneries ailleurs. mais toi ça ne va pas. mais Sobel c'est mon texte. Mais moi, la dégg que naan texte quel texte. mais regarde ici xoolal. lan lay regarde Mini. chérie tu me manques. arrête ah, Mini, le texte il est là. C'est un scénario. Regarde, viens voir. Le gars, il dit à sa femme, écoute, en fait, il, a, est marié, quoi. Mais là, il est, euh, il est avec sa copine au téléphone. Il lui dit, chérie, tu me manques, non, je la sens pas. Mais regarde.. regarde, chérie, je la sens pas. Tu me manques. Euh, euh, elle est statique, elle ne vit pas. Mais je répète. Tu vois que je répète.

Tu as beaucoup changé ces temps-ci, Je veux juste que tu sois fière de moi. Je t'assure. Et regarde ce que tu as fait avec mon téléphone. C'est promis. Ok, je veux juste que tu sois fière de moi. Tu comprends Je serai fière de toi le jour où tu me considéreras comme une vraie femme. Je suis désolée. personne n'est fier de moi. Même certains hommes dans mon quartier. ñu bari maa ngi leen di tànqal mënuñu dara. ani docteur. man amoon ay bonsoir bonjour la année directeur laa la wax. mooy yow yow ni may yuuxoo eh, nag yow yaay kan ba may naan di ma yuuxu. xam nga may kan su ma duggee ci biir nga xam man may kan xam nga lu ma lay xamal man duma sa morom directeur laa bi nga xam ndax liñ wala nekk. man sama soxla soxlawul bu nekk ci liste bii xel loolu ñu soo ma bindul ma bind sama tur ci liste bi. kaay bind ko nekk. booy directeur yi foo leen man xoolal nekkuma fi di benn di benn benn toog bu fekkee seen place yi nga xam ne dañ laa négocier ba indi la fii moo tax ngay man du ma sa morom laa soxla fa xam est-ce que mu ngi fi. man may wax yow laay kan nga mën a dugg foo jëm. xamoo maay kan déedéet xam léegi xam nga kañ nga may xam bu ma duggee ci biir ngay xam maay kan may ma ñew may ma la ma la fi fekke matt mo la fi do fi dama lay dam ray ma yow yow indiscipliné nga hmm. sa gudday ngay mel ni waay <laughs> da jabar ni la toll loolu wala metti da ngay sourire wala da ngay bu ba ah. yi do fi duggé noonu lol bu ma génnee la damay rek ci biir ba paré ñëwël ga ci biti do duggu mais boy yow dama lay gañ ah ray ma indiscipliné moo way mu ne ma ne moo xam nga ne ba nga ci polo ji nak yépp do la seen pax bu yow bo de do duggu de dama baadoolo bay bëgg a dem bu ñëwee rek yaq góor jaam bu ñëw rek di karakat dugal boo duggee di ok ok c'est bon c'est le dossier de Samsung ok je vois je crois que c'est les enveloppes yow ya yee di wan a dox yaa yee wan a cuukeel mais yéen yéen lakkat ngeen nit ñi mais dafa mel yeen doom yéen a koñ mais ñun ci koñ bi lañ bok hein ah? kundum kundum suba kundum kundum ngoon bëccëg mais ñun duñu am sax sieste mais ba kañ ñun kon ci lañ bokk ah man du ma ne xale yi ñoo raw mais dama naan yéen yéen a indiscipliné ndax yéen yéen a yéen a leen war a éduquer mais li ba kañ lu ëpp tuuru dootu ñu may dara ah. c'est tout mais yéen da ngeen a soofoo yéen même. salaamaaleykum. ci kii ci mu gis salaamaaleykum ci kii ci wax. man maa ngi ma nuyoo rek. Tu qui, je demande Comment Bien. Merci. va, ça se passe Avec des dérangements, comment ça se passe ah, Santé, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'il faut aussi Un de tourne. Ok. Donc, tu veux, tu veux pisser Ouais, ça pisse. Il merci, pisse. Eh, mais pourquoi Pourquoi tu me déranges, toi hein Pourquoi tu me déranges, dit 12, qui 12 là. 12, tu rentres compte de me dire 12 Namadjoum. Hein Namadjoum, 11, 11. C'est quoi i mais 11 On parle de 10, tu parles de 11 Ah, ah, ah il euh, un gars qui n'a... La prochaine fois, je vais te faire... Allez, dégage Y'a un

man li ma pas beaucoup yay. il me faut juste 10 jours de tournage Il une xoolal 10 jours chaque jour 125 000 francs un petit 100 000 francs eh. euh, ma après les comédiens bien sûr mhm. la duplication ça va me prendre mhm. euh, disons 1000 francs 800 par cassette si tu sors 1000 ça fait 1 million il me faut juste ça pour que ce rêve soit réalisé Y a une Je dama mënuloo denculoo nga ba jéemtale bàyyi gàcce nekku ci. léegi te mënoo dem ci sa mère nekk ci koñ bi nga wax ko au moins mu lebal. bul ma ko waxati gannaaw bi sa bul ma ko waxati. xale yii nga dajale kenn liggéeyu ci kenn googu ci kenn yettu ci ban dof mooy dem di jël alal naan mi ngi la kaa lebal nga naan dangaa liggéey. seen théâtre boole puy de yii du tax may jóg di dugg ci biir dëkk bi naan maa ngi waxi kenn dara ñu dama koy yawee ëllëg ak si biir bu may deeg xiif ci sama bi keur gi la ka de ma sàmba du ko yëg ma dem du ko yëg suma ka amé fi la koy def buma ka ñaké amna am wuñ ko ba sa yu ma ko yàlla joxe su ngeen mëne def noonu noppal na leen su ngeen mënulee yéen xam man ma kenn dab tayina Mais c'est malade lan laati lii. yaay tay ko. tay ko mooy lii lan yow yaa ngi naaj ci de. du li ma lay waxee ngi nii nangu wuloo ma déggal yéen a ngi topp coow addinaa ngi leen mbamb ñu ngi leen di ŋànk dara sotteegul yaa ngi nii xam nga foo jëm toog leen ngeen nekk rek ah lii rek rafet na. xiif nañ génn nañ sonn nañ génn nañ rafle nañu mar nañu génn nañ toog nañ ay guddi mu métti torop génn nañ kon tey su ma ko génnee amoon damaa bëgg sa projet fini bii nga tenir tant à cœur jël ko nga jaay ko nga mën a financer sa projet. non non non ça je peux pas le faire écoute ça c'est un héritage lii c'est pour toi. non non non je suis désolé. déglu ko. non alal ah, du faj de gàcce lay faj. amal jom nangul looy bañ lii sa bëgg-bëgg la jaral naka mu génne alalam jox la sas na la ndax xale bi wax na la wax ji nee na la xiif na génnewu ko mar na génnewu ko rafle na génnewu ko xam na li nga bëgg fu mu toll ci yow daf la sas li nga bëggoon jox na la loo ko liggéeyee góorgóorul ba liggéey ka ba moom mii nga teral ka xale bii dee amoo payam ak moom de bon non yow kennel rek. ay grand xamal la ñun dañu sonn pendant neuf mois ñuy répéter chaque jour guddeeg bëccëg et puis xamal lan lañ lay xamal grand. bu fekkee ne li nga digaaleeg ñun munoo ko nga wax ñu ñu dem seeti beneen metteur en scène.

Yen ay kan yen ay kan yen. toi tu sais le sacrifice que j'ai fait pour toi yere bi nga sol mako mom est-ce que man da nga ma gis ma sol yere bu rafet je m'en fous c'est votre bonheur qui m'intéresse ah toi tu peux faire ça aujourd'hui t'oublies que man tere nañ ma ba ma and ak yow ñàkk fayda may and ak yow di dugg sa kër gel ku bëggul la neex wala eh, ko très bien. yow ça ça Je papa. un ma am Il depuis combien de temps man ak la Je j'ai pas une femme moi. j'ai pas une famille moi. Je laisse j'ai laissé tomber mes études. pour le théâtre et pour vous. qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour moi. vous pensez que vous ne a ma gën de télé vous pensez que gëmoon nañ est c'est la même chose ou mieux on peut le faire qu'est-ce que j'ai fait J'ai laisse ma famille ma femme mes études pour vous aujourd'hui vous me payez comme ça toi c'est toi qui me fais ça voilà xoolal seen xale yi. yéen lu ngeen bëgg a amee pay yéen kër yéen da ngeen koy mën a amee yéen demagu leen télévision demagu leen fenn ndaw si romb rek ngeen di ko xool ba xamatul lu ngeen def baar laalo. papa dañuy xool rek. xool booy rek ngeen demagu leen télévision demagu leen fenn. ngeen daal daal di jàpp ngeen ma ko di wax waaw ana Samsu moomee. Samsu mi ngi ci biir Samsu. Samsu. waaw Samsu. Samsu na nga def. alhamdulilah. waaw père. waaw man de damaa bëggoon def théâtre man mii. père per, théâtre métti na de. waaw père théâtre lu ko jóg def de. ah man de. ah on n'est pas comédien comme ça. man de man de daa cee lan nga def. ah man de man mën na maa toppandoo nag mën naa mën naa it eh, eh, def ay kii ay imitation. Ah, waaw imitation waaw waaw. comme ban par exemple. waaw dañ foog ne xale rek leen barke suñ bi laaloo. magum ji mu wax ngeen di ko cëppatoo kenn xamul. xanaa xanaa man man sum sumi laay waxal <laughs> waaw. waaw père ban ak ban nga ay Senghor rek ay Mansour Mbaye ak yooyu. mën naa ko Senghor Senghor Senghor. Euh, dañ maa woon fële ci Sowal. dama demee ci Sowal ah, mu doon def na 90e anniversaire Ben benn journaliste daal dugg euh, euh, monsieur le président je m'appelle Ken Pogoum euh, je suis journaliste monsieur le président votre 90e anniversaire bâton plein monsieur le président qu'avez-vous à nous répondre en disant Ken Pogoum vous avez tout dit au demeurant bii la ak ak ban mon père Mansour Mbaye naan ko ndeysaan

je vais tourner téléphone faire personnage bi dina am couleur On me à ce qu'on va faire on va tourner ça Inch'Allah, qui père. baax doo suturaal ñam wi ay kilifa la nu de doom lekkal lekkal sobleex moom leen waaye man fii ndax xam ne li ma indi fi bu jigéen da si xël àndax moom ñaari yoon ñetteel baa waral indi ma fii nga xamante ne magam jëmm la. wallaay wallaay. ñaata at la am. fukki at ak ñett. booba rey naa ka. rey na ka fukki at ñett ak gune la. ah fukki ñett u dem si ñaar ñene déet ku la bëgg a tollante booga naa ka rey. dama ne. dee na ba yàgg. gune ba demee ba la yëngal mag nekkatulab gune te fukki at ak ñett kaka am yosu na lab gune.

dem ci benn banque de crédit mu lebal ma xaalis ma boole ko ak natt koñ bi sachant que tourner un film n'est pas facile yow booba yaa ngi nelaw may gëstu ngir lu la bëgg may gëstu ngir lu la sargal may gëstu ngir lu la yee ci àdduna ak ay sofantal je n'oublierai jamais da da da da. Yeah. In the house. Da da da da. I'll feel my tune. Da da da da. Da da da da. Some content. Da da da da. Bim bim bim down. Da da da da. Big big big Da da da da. Da da da da. Yes I. Da da da da. Ram ram ram down.

attitude. Yeah, da da da da. Waslo, attitude. Yeah, da da da da. On over on va tourner. Yeah, da da da da da. Bam bam bam bim bim down. Da da da da. Ding ding down. Da da da da. Hey, Liangu, Liangu, da da da da. da da da da. Ding da bam bam ding down. Da down. Da da. rolling you down. Uh, da da da da. On va tourner. Yes, da da da da. Avant, on va tourner. Da da da. Da da da da. ما يكرو يكرو ما خارج جمل هم دا منو خم غبا بكرو دا فتان غبا بوم دا فمتني من باب نيو في ينو فت يو nan nga mujjee ak sa examen bobu nga doon def. ah non loolu je l'ai réussi. passé naa ko. actuellement je travaille sur la scolarisation des filles. Mhm. Euh, je veux que toutes les filles aillent à l'école. temps yi moom ci loolu laay liggéey. Mhm. vraiment je veux que ça réussisse. Mhm. loolu la. non day baax parce que nit bu fekkee dafa jóg pour def dara ak volonté. dina ci am li mu bëgg quoi. alors. waaw ah, hmm, baax na. wala ñëwoon ñu dem. fan. ñëwoon ñu si man dama de dama. xoolal sax ba yaay taxaw. waaw déw ma bàyyi ma demal ma déw ma. tiisul. déw ma déw ma yow demal. depuis oh. yaa may daw depuis suba. déw ma la déedéet déw ma bàyyi ma rek ba taxaw. xoolal Amina xoolal gis nga gars yi gis nga ni ñu bégee ñoom ñëpp dañu bégee. waaw ma ne ma maa ngi yow ñu fexe ba bégee. je t'aime. xam nga dama la utootul bu bees. amul. xam nga lu ma lay defal. waxal ma léegi. je t'aime encore mon corps ici. et puis cette brise. Siddidat va au festival chanteur sanglotant chez les Locks de Locke de Monsensal. Tu quittes le pain Déjà. Maman Kii moom a kay kii li mu wut fii il est xëy na waaw waxuma woon lii yaa eh waaye mais yow yow ban Sénégal la ne ah mais jóge sa quitté sa kër ñëw di wax ak say do sa doom fekk ko ci piscine ah ngay wax ak moom di indi ay humour puusal nit ñi lan la ci wuti. waaw dama bëggoon mu neex rek. non bëgg mu neex film la ñuy def. ok d'accord ah? mais maam prochaine fois bul jaar ci kanam caméra bi. mais avant may quitté wax naa coupé. non non non on coupe c'est on coupe. non attends mais non maam ma ok d'accord Ousmane Ousmane. mais yow da ngay liggéey wala. lan la mu ngi ci biir champs bi. waaw man ni ma ko téye rek laa ko téye ah. mais loolu mooy lan. wuy ma xoolee booy yi dàq ñu maa joué nii waroon na fekk may tourné man dama waroon. vraiment yow kii day saboté bon mais c'est quoi ça quoi, bi la bokk. eh eh oui mais yow xoolal grand excuse-moi hein. ah yaa ngi réglé un problème technique man li may réglé c'est un problème artistique Boy, man je suis le metteur en scène. Je t'ai jamais dit de jouer des Dingaï. Non, attends, non, attends. Samsou, Samsou c'est moi le réalisateur. Ok. Quand le générique passe, dañuy def Mame Birame Diouf réalisateur. c'est moi qui réalise toogal nga scénario dawatu c'est moi qui réalise. ok on le refait c'était bien. Hein. on le refait dañoo xiif gaañ. Ah, mais lan vous bëgg ma ah, couper mais ma couper séquence bi ndax añ. kenn du añ te terminé

damaa bëgg gis su ma gisee ci film bi rek bu ko defee mu ñëw takk ma. kii moo iñ am kii a jeex. neexul ba neexul mais da ngaa exagéré. <laughs> solo solo ba nice bu ko defee booy su ma gisee booy mooy booyu kaaw ñuy wax kaaw Europe gis ma xam ni man Afrique laa nekk gis nga gis sama rôle mokkal naa ko après ma si ay booyu tooy mun a gérer di tukki comme gars yi. gars yi di ma jël ay vol yu ma neex may tukki comme ñoom mais yow sax <laughs> neexuma neexu mais sa rôle bi <laughs> oh là là non nii moom nii baax na bu loo si yokkati après leneen ngay doon quoi te bëgguma loolu. super gars yi ñu assuré ko waaye dégg nga on le fait da nga ko war a nopp mais nopp ko mu nopp la da ngeen di tourner. C'est vraiment mes Que ça soit naturel quand même. C'est un problème. Hein? Vous jouez pour les besoins d'un film. Moi, j'ai envie que vous nous non, faites... Attends, attends, Samsung, non. C'est bon, moteur. J'ai un conseil qui m'attend quoi, à Thiès, s'il vous plaît, de temps. Mais tu tournes. Moteur, am Amos. Amos. c'est Bon, hein? Vous pivotez de gauche ou à droite, Amco Amos. amorce. Attends, maman, attends, là, ok, ok doo machine. ouais mais non mais tu fais doucement ok donc voilà. non vous, bul pivoter. mais li moi, c'est simple. d'accord en tant que réalisateur. j'ai le droit de dire bon.. loolu am Amco amorce. amorce grand Amco amorce voilà. mais c'est ça Amco amorce. ok d'accord. c'est bon. c'est bon moteur. c'est bon hein, grand. axe Nopco.. Nopco mon Nop quand même Nopco sa visage aussi nga bàyyi ko mu xaw a tax quoi bul fas sa kanam bi yow tamit film ngay def toi aussi hein bul sa visage bi na xawal na xaw a leer quoi. man perche bi daf hein? may gaañ de man da ngeen di gaaw de. Ousmane régler sa perche toi aussi hein man ci man vraiment man ay amateur ay profane la amal affaire moteur moteur Samsou reste sur place moteur. ok c'est bon ça tourne action. mooy li ma la wax léegi lii koi comprendre nga booy booy wala nga xam yéen ñaar ñi xam nga ay rakk ngeen quoi fii bu leen am lu ngeen di man maa leen gérer parce que fii man la mais nag attention dangeen koy jënd dangeen koy jënd bu ñu leen indilee añ dañ koy bokk et puis mënuñ bi ñu leen di indi da ngeen ma ciy sédd ok fii kenn du leen laal ku leen laal ma kii man fii mooy sama kër li ma indi fii man xool saa yu ma génnee moo may delloo si waat parce que dafa dee ci yee rakk ndaw dal may tabaayoo film bi doon lu le rêve d'être des stars <laughs> de vraies stars de la télé demoon naa ba ñeewantal sama rakk parce que ku ci nekk nelawul ci loo que ni bés dina jot sama film doon lu askan wi yépp gis ah la télé taxi xamoo nu mu egg la booy Pocha doo sa taxi. Boy, yow mënoo ñu dimbale ah doo ñu dimbale sa taxi bi yow tamit doo ñu dimbale ak sa wax ju bari ji ah bon yow xam nga lan la sa taxi bi la ñuy éliminer mu jeex. xam nga gars lan la ñu wax suñu kaset bi di génn si boy, wala nag. bi nga kaset bi bis bu génnee booy am naa grand boo xamante ni nee na ma xoolal booy fësal si écran bi tuuti ma def la nga star boobaa cor yi di ko xoola xalé yi duñu ko langal boy lool lañu wara a wax mais ay ay paca-paca yi boy dafa doy xam nga lan moy sam problème man ñu bëré may xaar té ñu néew ñoo gëm limay dund boy parce que nee jamono bi nit ñi tollo ci out liggéey dem diko outi man ma top ci walu ar boy xam nga lan la yow dañu war a dimbali ak ay kii vivre à verra booy imaginer man waxuma loolu booy imaginer fu booy ñu génn télé. booy commencé dawal booy ci oto yu neex yi di doxaan ci xale yu nooy yi booy. booy booy booy sonn naa booy ak ak suñu mbar mbarxee ñu tur bi mën a ay ay fidélité. booy loolu booy booy booy booy booy Babs ah booy. booy li ngeen wax yëpp dégg naa ko booy. Eh, sama gars yi ñuy wax moo dàq gaz. booy lenn laa leen xamal. ba gis nga ba tournage bi jeexee si laa tàmbali man sama liggéey est-ce que yi a may xool bu baax. bu baax booy. booy bi jeexee laa tàmbali nekk star gis nga moment bu ñu toll nii du kaset bi génnee waxuma la man waaye képp ku wër si man. booy star ngay doon booy. lu leer naa la wax. may battre billet muy dox. <laughs> booy da nekk saa yi sax. Sénégal jëm kanam. booy sama ñoom yaay booy. sama papa sama famille booy. Oh. gis ngeen nga man léegi man j'ai peur quoi man j'ai peur parce que yéen. Amina may ñu. non ma wax la xoolal yéen c'est la folie des grandeurs yéen xoolal instant bi high level ngeen nekk booy gars yi descendez sur Hein. regardez-moi il est en plein rêve.

Boy, enfin boy ñu feeñ télé Oh, boy. nekk ay grand star boy, siiw boy. am oh. boy. Boy, boy waatal neex boy, nekk leneen. nous sommes bientôt à la télévision. nous sommes bientôt à la télévision. on oh. télévision. nous sommes bientôt à la télévision. nous sommes bientôt à la la télévision. On va comme si, comme ça. la télévision. Attention la télévision. télévision. Télévision. Télévision. Télévision. Télévision, télévision, télévision. television. Oh, television. Television. Television. Television. Hey! Television. Television. Television. Television. we ala dele. Isere bienta sorti finalement. <laughs> J'étais soulagé. C'était le moment égoïste que je suis de penser à ma femme, ma très chère. ni por kira khalo halla bala mala wakhlo ala premande bora ko yarde borom ko ko yakko ni chadaw be sadu ko jaba jari ma sabram ko dak ma jaga bay sakyo ma di borom sa ko khalis e agari jonga bay ak bal fa bonday hal ma jay bu ko khol bol fay bu sabal sukar bol fay kar e eh, khalla jay de billahi khalla jay barka ya sunna khalla jay ay boy khal ma jay ah waaw eh, wala ko dekul babu khalla jay de السلام عليكم صار صغارب طلع لغة جاري طلع لها بجبا أنا وانت خالد بو خالد لا تبل سكر قبل شاي ما لا وخلي بو ما تبل تبل سكر بالفاي بوتي ونادم بالفاي ما لا وخلول ها مرة بول وغادر يا تبي sa halade ga wiwe umbadam apar kaldi ko abew daam jake nu koy doyee ah looloo ma jaaxal sax ban loo doyee jëkkër quoi war affaire boobu ba dem problème mais oui ba par amoon naa benn affaire quoi benn envie quoi loo xam ne si ma la nekk quoi wóor na yàlla affaire bi doon naa la ko bëgg a wax mais xam nga dama am benn kii boo xam ne moom moo nekk sama yaram quoi mais nag am nga temps yëpp man bëggoon naa gis ku mel ne yow mais yow fii ah

Dabar damay laaj ndax dama am benn action quoi moo bëggoon. waaw ndax yow seen gàlle bi xanaa amu leen ci kii affaire kii yooyu di seetaan théâtre ak yooyu réseau yi ci. déedéet. ah. déedéet. kon affaire bi intéressé la. mais da na la da fi toj tey bara eh kii de am naa ko waaw ndaw si ah kon da ngaa tënj ba pare teg sa ci suuf man pour man da ngaa tënj taxaw noonu. ah mais wuyu ma ci affaire kii bi quoi affaire réseau yooyu ma lay expliqué Sénégal danga seetaan ci réew. moom lañ laa bëgg damay wéet koñ bi aw ma fekk kenn wax neexuñu ma. yow maanaam sa soose wala joola wala mbàndanke lan nga ci yow xeet nga. pël laa. ah ceeb la a mën a mel ni dafa feeñ say bëñ feeñ sa kanam feeñ ci sa msiin xalal sa xafi saa ngi ma koy wax mi ngi naan ma meew. mais way a affaire réseau boobu da nga cee kii. intéressé na ma trop man moom laa bëgg. Ah, comme par nga kay laa bëgg di seetaan. ah très bien mi ngi noonu comme par nga kay xaa dégg nga rokki mi rokki sa rokki mi rokkata. Ah. taf taf rek tag bu neexee ci dans les minutes que nous nii tout de boo ko woowee léegi bu dikk xëcal la fii te xoolal attention de 24 heures sur 24 da lay jox théâtre bu de. du la jox théâtre kii yi yu bon yu kii non non non xoolal di pur théâtre barke Rasulullah te xoolal ma deele benn affaire hmm? artistes yi xoolal dañuy xalaat sax xalaat xalaat rek te génneegun ko bindagun ko xoolal bu jox la ko ci réseau bi loolu rek laa bëgg <laughs> Mon produit se vendait comme de petits pains. Les pirates. Yo. Bamay may gëstu yaa ou nelaw papa Bamay répété yaa tête de papa Bamay ray sa sama bop. di wër lu ma sama film yaa ngi nelaw papa ba may def sama duplication yaa nelaw papa tey sama film génn nga jóg am kattan jënd benn CD original tasaare ko ci ko bitim réew foog ni yow yaa am na yàlla malheureusement, la ëpp da nga ni yow rek yor papa te trompe-toi tu vis de ma sueur jëriñoo bi benn yoon mooy mais xoolal gaañ li ma def studio xam nga coono la ak ñaq mais tey dama daw parce que sama single bu bees bi mais doom day xoolal kaset bi génnagul moom laa gis boy di ko trafiqué xam nga mais nag tam euh, day li ma lay conseil mhm. man bu doon mën du ma daw di leen daal. booy boo ci gisati muy jaay à pirate. Mhm. koy woo yedd ko. Mhm. barke yàlla ah. xoolal booy man génne naa album. frais ci soixante dix euh, soixante la la de. ku ko dégg da nga naan mënal waxul dëgg la. dëgg lekk un million lekk ma ko ci. donc man et puis man du ma blâmer booy yi parce que ñi leen koy jaayloo laa blâmer ak tamit vraiment. bees dayaa tamit état bi jàppale leen ñu mën a xeex affaire yi quoi. Oh, mais cinquante ans mais koo gis mu musique bu am cinquante ans mais da nga ko yërëm parce que bu feebaree il faut ñu yóbbu ko il faut ñu cotiser ko ci à télévision bi. dëgg la wax mais vraiment loolu sama film génn <laughs> li mu bëggoon am na samay rakk kontaan nañu askan wi kontaan nañu mu ne maa ngi wéet ak sama naqar. Les lu sont ci film bi <laughs> tu marches très bien avec ta famille moom xelam dal na moo ne sax bokk ci woon <laughs> añ man mi xiif fanaane xiif te ndax bor bi ci sama loos li lépp kenn teguma ko kudul yow boo ma yeneewul sa alalit man sama xol ak sama xel yéene naa la yaa ngi toog di ma seetaan xalaat ni sax boo jëndee sama cassette original dama lay gën sa mbëggeel anamu sa jafeel anamu tax nga may seetaan tey bégal naa la duma jóg ci gëstu lay bégal là je suis là on Samsou veuillez me au commissariat parce que dans la convocation à deux reprises mais nous, cette fois c'est une convocation avec interpellation immédiate Comme le fait Baye. kan convoqué. à la police. police. monsieur monsieur Samsou. Ah, non maire na seen xel dal mën na fa bañ a sax.

dénk naa la yàlla demal te ñëw demal te ñëw ay doom lu ma ci xam ay doom lu ma ci xam jógal jógal jógal jógal wuyu ji duma la fi bàyyi dénk naa la yàlla doom dénk naa la yàlla yal na ma la yàlla delloo si nga nekk ci sa sago déet bul def nii bul def nii man yaa maa defal kat boo defee nii déet boo defee nii dag maa daal di jaaxal xam nga lan la nañu bàyyi yëpp ci loxo yàlla dénk naa ko yàlla ñëwal ñu toog ba xam déet déet dalal yaay booy dalal kaay ñu ci biir kaay ñu dem ci biir bul def nii boo ko defee rek jaaxal yéen a ngi dem ci

fi de me soutenir, je les connais même pas. J'ai partagé la prison avec eux. Ils sont là aujourd'hui. Ils ne m'ont jamais vu sur un plateau. Ils ne m'ont jamais vu à la télé. Et pourtant, ils sont là. Et toi Qu'est-ce que tu as fait pour moi s'il te plaît. Regarde-moi. Regarde-moi. Moi, je t'aime. Je ne vis que pour toi. Pense à moi. Je suis un artiste. Je dois vivre de mon art. way teeñ saagar maram ak saagar kumba sam saagar ma jigéen seen saagar mi ñu damm loxo ba te teewu ko jiin farangorong piir nga amoo maam buy yox yoxi mbaa maam buy daw defoolu la gàcce bàyyee ci biir kaso mbaa nga wax lu la gàcce bàyyee ci biir kaso danga bëggoon a xeexal sam réew ba moo la tax ci biir kaso way bala nga cee jariñoo yaak say doom Biraa tarbiyul ko ñoom ñu jariñoo ko yow nga toog yaak say nelaw yaak say siyaas ñun ñuy daw ngir bëgg a teral sunum réew way wàllo ñun de jaaxle nañ ci a àdduna mbaam bu dem bak ndaakin mi ci loot mangurong far bay teeñ saagar maramëg saagar kumba zaam saagar ma jigéen seen zamaam sigil mbaabu dem baag ndakkin mi ci loo demaa gorong farba yi teeñ bul sëgg si gil ndax defuloo fi lu jar ngay sënge Wayo. Porque brande ka sa war dom, dom sa mo ko ti ate ha prabu sa kay ya, hari sa tapas kuhar. wah, waaw man la man wah, yore waaw wow. Wah, man la waaw. bi ma nekk si bi wow. déedéet bul wax man neex naa la waxal rek ni théâtre bi neex na déedéet bul wax man neex naa la ndax ay gel moom doyal na gel doyal na gel waa déet waaw waaw waaw bu la neexee coupé. konko. dama leen ko def sànq. dama leen ko def